waaw 46. waaw macha allah dëgg kàddu yi rafet na. macha euh, jàpp naa ne ni nga ko waxee am nañu fu ñu am nañu repère. Mhm, ndaw yi am nañu repère. Mhm. ndax euh, wax nga ko euh, toog wi yàggul waaye toog woo xam ne ne yàgg na ci enseignement. Mhm, ndax li ñu jàng ci moom bari na. lim ñu wan ci ay jikko bari na lim ñu wan ci ay jëf. bari ba tey jii ñun ndaw yi. Mhm. Euh, jullit yëpp lay wax ci Sénégal. Mhm. bàyyil nañu fi loo xam ne ne suñ ko toppee dinañ continuer nekk ci li nga xam ne ne mooy yoonu siraatal al mustaqim. di ko ëmb ci bokk na ci ay kàddoom. Mhm. nga baal ma euh, da doon wax naan euh, ñaar ñor nañ ma. mooy mbokk gi mbokk gi ak diine ji. mbokk gi ak diine ji. c'est très important mooy sama it. mooy sama it. mooy ni mbokk gi islaahu daal di kooku yonent bi jàngal mooy fexe ba diggante nit ñi baax. yiw kenn du ko ne yéenante sa mbokk jam mhm. loolu tabaarakallaahu loolu moo nekkoon mission mhm. waaye mm, diine ji tamit ndax euh, euh, am na euh, benn daara boo xamante ni dañ ko def institut Mamadou Ndaak Seck mhm. boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Roqay Seck moo ko doon teg daal ni xalifa bi nag comme yaa fi loolu ñu ngi ci sa loxo sa cër la xalifa bi bu ñëwee keroog dañuy teraanga bu ne jox nañ ma ko du ma toogee ci xilaafa léegi léegi teraanga bu ne jox nañ la ko. Mhm. mu ne waaye teraangay alxuraanul karim. Mhm. ak teraangay daara mooy teraanga ji ma gën a réer ci sama teraanga yi. waaw kon kooku xamoon na lan mooy ndonoom. Mhm. xamoon na lan mooy ndonoom ndax nit ki mën naa yoroon ndono te du xam ndono li lan waaye nag xam yoroon ndono ba pare xam ndono li lan moo koy gunge ak lan moo koy doxal ak lan moo koy taaral ak lan mooy tax ndono li am continuité moo xamoon na ko te nangu woon na caa nekk. mboolem programme yi nga xamante amaan na ci daaray alxuraan yi. bëriwul déplacement bu mu def ci programme yu bëri waaye daara alxuraan yi yi nga xamante ni am na bëri na boo xool bu boo bu boo euh, bu ma la envoyé woon yoo xamante ni tabaarakallaahu mhm. moom xalifa bi mu ci. Mhm. ànd ak donga daara ñu toog macha ci suufam. Mhm. di jàng alxuraan waaye fu li nga xam ne fa la nekkoon di euh, cooti ñu koy wax cooti fii ci canaba. nga xam ne fa la nekkoon avant muy agsi ci xilaafa gi. dafaa def daara. tabarakallahu doomam nekk fa ñu fay jàngale alxuraanu karim mhm. waaye mu nekkoon tamit liggéeykat ndax béykat la woon bu mag macha allah rabbi mhm. ku ñu ràññewoon la ci li nga ni mooy béy ba nga xamante ni di yaakaar ci keneen leneen lu dul li nga xamante ni mooy li ma amar ndaak dénkoon te ak seen ngor mhm. bu ngeen ko saxee mu ne la nekk ci euh, penku adduna bi ak li nekk ci sowu adduna bi yàlla dina leen ko indil kon loolu moom ci la nekkoon tabarakallahu si abdourahim gàtt rek ci tënk rek <coughs> ndax maa ngi jël temps balaa ma laa bàyyi